thank you asalaamaaleykum mbokki internet xibaaru Bambuk mm-hmm. euh, tey ñu ngi fii ci sa salle de réunion bu mairie de Koungheul mm-hmm. euh, amoon benn ndaje boo xam ne CDS bi moo ko fi woote woon mais duñ ci xuus dañuy jox mm-hmm. kàddu gi ki nga xam ne mooy président El Hadj moom mi mu daal di présenté wax lan moo waraloon euh, jotaay bi tey fii ci mairie Koungheul asalaamaaleykum mbokk xibaaru Bambuk ñu ngi ñi suivre site d' internet bi télévision bi YouTube page bi tépp ñu leen di nuyu di leen sant Euh, di wax ne tey euh, euh, bàyyi lu waraloon daje bi mooy que dañoo faloon en septembre deux mille 2018 donc ñu dawal trois ans su mandat jeex ñu dajoon fi tey doon présenter bilan ba pare passé maintenant aux élections donc yàlla def ñu présenter bilan bilan nag bon assemblée lañ ko doon présenter assemblée bi globalement apprécié nañ doxalin bi mais bu fekkee ne am na ay manquement yoo xam ne souligné nañ ko donc ñu ngi cee wax dëgg yàlla sant suñu borom bu baax a baax sant également population bi amoon confiance ñun ba tax ñu mën a donc ñu mën a dérouler pendant ces trois ans là tranquillement ba mën leen présenter également bilan boo xam ne mucc na ayib. jërëjëf président ndax mën nga ñëwaat ci détail tuuti rek lan moo ci bilan bi moo xam rapport financier bi wala activité yi nga xam ne jot nga ko def bépp bu ñu la tabbee ci boppu CDS bi. waaw rapport financier bi peut-être naa ci expliquer quelques quelques quelques détails ndax euh, euh, umpale wu leen ni trois ans yi n'était pas parce que corona baa ngi ci biir également ay retard de remboursement yu ñu amoon yëpp mu ngi ci biir mais yàlla kàttanal nañu ba gérer nañu ko comme il se doit ndax comité boo xam ne bi ngay démarrer nouvelle création la woon comité ad moo fa nekkoon nga hérité dans les comptes moins de 500000 nga liggéey def say investissement am ay partenaires yoo xam ne ni gëm nañ la wala boog gëm nañ santé def ci seen seen xaalis euh, euh, ba nga mën a am ay matériel mën a am li nga soxla mën a mën a am mën a également euh, say ambition nga réaliser ko ci ci poste bi donc damay jàpp ne sa financière bi moom macha allah amuñu xaalis mais li ñu bëgg te mënuñ ko am ubbeeku nañ ci nit ñi ba nit ñi defal ñu ko te aussi mu suñu am problème de salaire boo xam ne sonal nañu mu suñu am problème de motivation bu ñu sonal lépp loo xam ne peut-être lu ñu waroon la ci point de financier am nañ ci taxawaay bu mat sëkk avec responsabilité et transparence ndax bu ñu demee ba comité de santé gedd seen cër bi ñu leen doon jox na ñun kat may nañ ko poste bi pour poste bi dox ñu dugal ko ci benn programme d' investissement pour la pour promouvoir la santé. moi je dis que ne euh, gàcc ngalaama ñi nga xam ne ñoom laa àndal di liggéey mooy Ousmane Thiati mooy Mari Won mais également mooy Ali Mamadou Ali Koulibaly donc ñu bokk comité bi di liggéey liggéey bu am solo lépp loo xam ne ne jàpp nañ ne lii kat falaakaaj bi war a def def nañ ko également di sant ICP aussi ci ci ci ci conseil am ci encadrement am donc euh, du point de vue financier wax dëgg yàlla on a une bonne santé financière. euh, malgré tout nag malgré tout ça a été très difficile mais tey au moins on a présenté un bilan et il y a plus de 2 millions dans le compte donc ça c'est c'est, c'est un succès ci ku démarré ci moins de 500 000 te amoo tey benn bor boo xam ne ni yaa war a fay donc Dieu merci euh, on a pu donc euh, respecter donc engagement yoo xam ne jëloon nañ ko pour sunu askan également ci yeneen bilan yi comme ni ma ko waxee jàpp naa cee brosser parce que ñun dañoo amoon nouvelle création mu nekkoon suñu défi ñu ñu ñu ñu équiper poste de santé bi en équipement daana am lu la ñu fekkoon nag mais am lu desoon parce que suñu première réunion prise de contact je me souviens dañu defal benn listing boo xam ne ay matériels médicaux yu manqué woon la yàlla def ñu ubbeeku ci nit ñi toutes les onze autorités yu nga xam ne yàlla na dégg kenn ku ne soumettre ñu la demande pour que nga appuyer ñu parce que peut-être euh, comité bi amuloon moyens financiers donc ñu fexe ba euh, fexe ba ñoom ñëpp. am nag ñu répondre favorablement te fay laa ko def faw ñu sant leen gërëm leen ku mel ni honorable député Fanta Sall may ñu bay matériel médical d'une valeur de de de dix millions kooku dañ ko sant gërëm ku mel ni aussi Alioune Badara Ly ñëw jàpp ci combat bi comme ni ñu koy waxee. jëndal ñu dix matelas ak ay ventilateur également ku mel ni Jibi Ndaw avec carrelage salle des profs euh, sa salle autant pour moi salle euh, maternité ak également euh, docteur médecin chef donc ki ñu appuyé également ci ay ay matériels médicaux donc ku lim juum bàyyiwuma kenn tout ce qui nous ont appuyé pour que ñun suñu ambition bi ñu amoon d'abord mooy que respecte cadre bi de telle sorte que institution bi ñu dékk dara du ci yàqu ñu rénover cadre bi def nañ ko beneen bi également fexe nañu ba matériels médicaux ñi santoon mu disponible beneen bi également fexe nañu ba personnel bi am seen motivation nga xam dinañ permettre ñu mën di liggéey ñu encore taxaw ci surtout médicaments yi parce que Koungheul dafa nekk ci zone tarification forfaitaire maanaam da ngay dagg benn ticket bu 2000 wala bu 5000 ci biir nga am consultation ci nga am garab donc c' est tout à fait normal que malade bi ñëw wala patient bi ñëw bu duggee def consultation mën a ak des médicaments ñun nag defoon ko notre pierre angulaire tant que malade tant que patient yaa ngi dugg di génn sans médicament rek amul lu ñu bëgg donc ñun faw ñu taxaw ci de telle sorte ku dugg ci biir génn di nga am médicament te loolu macha allah yàlla may nañu euh, jaar kat nañu ba ci deux ans yi am nañ trois ans yi am nañ vision boobu jël suñu force investir ko ci également fexe ba hygiène aussi am ci parce que ku wax hôpital wala centre de santé wala service sanitaire wax hygiène te mosuñu dégg jëw boo xam ne si à l'antipode donc de ce que nous ñu ngi sant ñëpp par rapport à cela di di ci gërëm ñëpp également seen collaboration surtout les chefs de village les chefs de quartier et euh, euh, les associations yoo xam ne wax dëgg yàlla tey bu fekkoon ne liggéey baaxul duñu falaat donc fekkee ngeen scrutin bi gis nañ ni mu demee. gis ngeen score bi ñu rawee suñu adversaire. si loolu sa leen la bëggoon laaj parce que gis nañ ne tey renouvellement bi. Mm-hmm. Euh, ñu daal nga toj sampaat seen dënd ñu daal di lay falaat. Mm-hmm. nga rawee ki nga xam ne tey euh, yaa ngi doon xëccoog moom score bu raw bu bëree bëri bëri. Mm-hmm. loolu ndax liggéey bi nga def ci CDS bi la bañ la ko joxe ba léegi la wala boog confiance bi nga xam ne. ñi nga xam ne da nga seqal liggéey bi ñoom ñoom ñoo la ko naa wax ñaar gi ñaar la parce que confiance bi du man maa ko mérité ñi ma àndal ñëpp ba ñi may jàppale ku mel ni Tayrou ku mel ni euh, euh, comment dirais-je Juma Camara nekk fi ma ko tudd ku mel ni également euh, Ousmane Diaty également duma ñu bëri su ma ko jim mais confiance ñun ñoo ñëpp ñoo ko mérité woo parce que tey bu doon élage moo ci nekk amaana peut am na yoo xam dinañ bàyyi mais ñun ñëpp dañoo travail en équipe gëm suñu bopp liggéey xam na li ñu dénk ñu moomuñu ko dénkaanu askan bi la loolu confiance bi la beneen également bilan bi c'est tellement satisfaisant satisfaisant li ñu def waxuma kenn mënu ko def mais dina jafe tey koo xam ne ne newoon na suñu place def lu raw lu ñu def donc dañ ciy sant yàlla sant ñëpp malgré nag malgré malgré que nos adversaires politiques transposent transposent seen seen combat indi ko ci mbir mi te lii c'est pas un combat c'est pas une chose politique lii chose citoyenne la comité de santé dugguñ ci pour am nit dugguñ ci pour def politique dañ ci dugg pour servir suñu askan donc bu ñu demee ba renouvellement ñu gis ne tey des ténors politiques dañuy seet opposant jaraleen lu ne génnee xaalis def lu ne man je déplore ça du loolu mooy doxal Koungheul du loolu mooy doxal Koungheul El Hadj Guèye nekkul secrétaire exécutif parce que tout simplement il est militant d'un parti politique il est devenu parce que dafa nit ñi dañoo bëgg mu ñoom liggéey ki ma àndal nii bokkuñu camp politique mu ngi fële maa ngi fële mais pourtant dañoo travail retourné dans retrouvé donc nag puisque ñun ndaw ñi ñoo xam loolu xam ne dañoo war a jàpp booloo doon benn en plus forte raison plus autorité donc je suis très je suis vraiment désolé bëgguma koon wax mais am na ci yoo xam ne ni c'est pas responsable pour une autorité wala pour des autorités di combattre nit koo xam ne liggéey na am na bilan mais di combattre passé pour proposition politique loolu jëmale Koungheul kanam. Euh, jërëjëf président donc dañuy tëj euh, émission bi ci wàll perspective yi parce que comme ni nga ko waxee nga fekk euh, CDS bu bees. dafa liggéey bu am solo am bilan ba am loo bàyyi ci kees gi tey lan mooy sa sa sa perspective bañ la falaatee pour un deuxième et dernier mandat. waaw ouais, perspective yi merci Baye ci question parce que am na solo. Mm-hmm. ndax bu fekkee liggéey nga def nga benn pas. nit ñi jox la war nga leen wax man fi ma jëmaat. donc euh, fi ñu jëmoon wax naa ko moo doon fexe ba ñu mën a équiper suñu poste de santé Dieu merci réussir nañ ko deuxième bi ñu ngi ci euh, am na ci yu ma dégage ci assemblée générale benn boo xam dama koy denc du ma ko mais en tout cas am nañ ay vision am ci démarche yu yu précise bu ñu permettre perspective yi ñu am na kat yi ñu cité ci assemblée générale bi ñu presque dans quelques ans. merci jërëjëf euh, président ñu ngi lay sant. merci xibaar bi merci beaucoup merci bien. Euh, ñu daal di ko sant baax di ko gërëm di jox di daje ak internet bi